قافل على علي وما لو لخير نهري بقف منك يا الله رواك يا رافع دار مرتبته بلا انقفال بفضل منك يا الله رواك مرتباتي بلا انقطاع بفضل منك يا الله رواك يا رافع الدارين مرتباتي بلا انقطاع بفضل منك يا الله alaaji Fallu Mbàkke yaweenu maam Seexunal Fallu yaweenu Seexuna al Fallu yow yaa nu moom Alaaji Fallu Mbakke yow moom Seexuna al Fallu yow moom kursi bi ka ca raw yaa Mbakke Alaaji Fallu Mbakke ku soppu si daaw Mbakke Alaaji Fallu Mbakke yow moom sa baay moonu moom sanganu saba door alaaji Fallu Mbakke yaanu moom gi sa baay moonu moom sanganu jënd ay saba door Mbakke borom Tuba mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi kilifay jataay bi di leen jox seen wàccuwaay bu baax soxna maam Bousso ibnu Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi ak doomam yi mu dendal Cheikh Abdoul Fattah ibnu Cheikh Mamadou Amin Baaram mi nga xam ne moom moo fi kilifa ci njaboot gu góor gi di nuyu sama waa kër baay alxaaji Mor Gueye li ma waxoon Serigne Cheikh Oumy Gueye bi ma wooyee maa moo maa ngi ñoom ñoo bokk bis bi ñoo ci bokk yem ni mu nekk seen wayjur noonu la nekk sama wayjur ngir yu bari te yépp yi yàlla dogal mu rafet yaakaar naa duma ci gis kenn ci ñoom ñi nga xam ne waa kër Baay moor lañ li may jaar ci turu sëriñ alxaaji walla sëriñ naa bariwul bu dee dana am sama xalifa rek laa leen di wax ndax loolu laa gëm looloo li nekk sunu wayjur yooyu yàlla dogal na seen ànd ba rafetoon na lool jàppoon nañ ko lool dëgëroon na lool ak Serigne Cheikh Thioro waajuru Serigne Mody mii toog day am ay yu dëgër yoo xam ne ñun ñi fi yàlla bàyyi amuñu sañ-sañ ci lu dul rafetal ko kon bu jamono xatee ba li war ci ñun xéewal ga mag ñi amoon amuñu ko di fekkante waxtu wu nekk di gisante waxtu wu nekk kon ñun bu ñu amul xéewal googu war nañu saa bu ñu gisee lu mu gàtt gàtt ñu dundal loola. ñu feddali loola xam ne jamono yu ñu sas lim ñu sas galfan ñu galfan gim ñu galfan waaye rafetal diggante yooyu rek moo ñu war lépp loo xam ne it lu ci am ak rëcc la ak doye di maa ngi koy jéggalu bu baax ci sama wetu bopp ne man jokk loola sàmm ko rafetal ko moo war sama diggante ak yéen ñoo ngi koy wax bu baax jotaay bii tey ci ña waroon a baas baas bi ci laa bokk ñu waroon a lal moquette yi ci laa bokk kenn waru fi woon a jiitu kenn waru fi woon mujj kon lépp lu ci am lu wuute ak loola maa ngi ko jégg lu baax ginnaaw loolu xam naa ni waxtaan wi waxtaan wu gàtt lay doon woo xam ne fàttalante lay doon ci ni ko sëriñ Cheikh mi waxe woon way waajur yooyu ñu tudd ñu nekkoon ci keppaaru Cheikh Mamadou Fadil radiyallahu anhu mu waajal leen defar leen waajtaay wam leen waajaloon defar gam leen defaroon muy at tarbiya mu yarga jeexit yi mu defoon ci ñoom lañuy jël ay tomb yu néew man koo jàpp man koo jariñoo ñun ndax ñoom dem nañ li ñuy njëkk a wax mooy ñoom dey sëriñ Falilu moo leen yar moo leen defar ak tarbiya nag day loo xam ne munta ñàkk ci nit ngir mu defaru ngir mu nekk nit nit mën naa nekk nit nii rek yor ay boppam waaleykum salaam yor li ñëpp yor ay bopp ak tànk waaye ngir nit defaru dañ koy waajal dañ koy defar loolu nag mooy mission bi nga xam ne yonent yi alayhimu salaatu wasalaam moo nekkoon seen warteef moom la leen gàlloon mooy defar nit ñi ba ñu nekk ay nit defar nit ñi ba ñu nekk ay jaamu yàlla jaami yàlla yuy jaamu yàlla yonent yooyu bu ñu fi jógee ñi leen fi wuutu mooy boroom xam-xam yi awliyaullah yi yarkat nit ñi boroom xam-xam yi mu dugg ca biir boo nee wàlli yu yàlla yi mu dugg ci biir mu dugg ci biir muy sëriñ Fadilu yar ci nag mbooloo defar leen ci ñu am jeexit ju rëy rëy rëy joo xam ne nekkoon ci ñoom ca jooje nag ñun ñi amul woon chance nag teewe keppaar yooya fekke loola jariñu ca yar yooya li ñu war a def mooy xool ba xam ñii lan moo tax ñu mel nii ñu mel li leen defar lan la lan lañ mën a def ba tibboo ci ba ñun ñu man cee jariñu loolu rek moom mooy mbir mi yar nag mbokk yi ay ay ay pàcc yar la yoo xam ne bu nekk ci yii pàcc yar yi nga xam ne ulamaaw tarbiya dañ koy wax bu nekk ci yooyu sëriñ Falilu radiyallahu anhu yaroon na ci mag ñii ñu wax ñuy wax ba ñu ci lool bokk na ci la ci jiitu mooy li ñuy wax at tarbiya al imaniya maanaam yar ci pas-pas yar nit ki defar ko ba mu nekk ab ab aji gëm yàlla ku wéetal yàlla ab julit li mu war a njëkk a xante woo gën koo yitte woo mooy di xool pas-pasam ba ndax moom wéetal na yàlla wala déet julli lu mbari bari koori lu mbari bari natt asaka haj makka jàng alquran ak loo def lu mu baax baax boo ko tegul ci fondement bu ñuy wax at tawxid du la jëriñ dara loolu yonent bi sallallahu alayhi wa la ko yàlla waxoon ne ko lan waleen ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin boo ma bokkaale ak dara yow Muhammad na nga xam ne danga nga ñàkk si jaamu yàlla yëpp di sippeeku te giñ naa ne da bokk ñuy perte <clears throat> moo tax ab yarkat lam war a gën a mooy yar kimi muy yar ba mu am tawxid Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu lu waxoon awalu waajibin ala al muridi taxsilu zaadihi min at tawxidi nee na ab murit nee na ab murit day li war a njëkk ci loo xam ne war na ko def ab yóbbal nee na mooy wéetal yàlla li nit war a njëkk a yittewoo nee na sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu nee na awalu waajibin alal muridi tahsilu zaadihi min at-tawxiidi ne néewut am murid day lam war a xante woo mooy liggéeyal ma déedéet waxul la mu war a xante woo njëkk a xante woo mooy julli waxul la mu war a xante woo mooy lam wax sëriñ Tuubaa wax mooy li war a njëkk a yittewoo mooy tawxiid wéetal yàlla fu mu toll nay xool ba xam ak wéetale am nu mel Cheikh Amadul Fadil nag radiyallahu anhu bokkoon ci kon ay ab yaram mooy mboolem ñi mu yaroon day seen lépp yàlla lañ ko wékkoon dañoo gëmoon yàlla gëm yàlla gu landi gëm yàlla gu wér gëm yàlla mboolem xeeti gëm yàlla yi nga xam ne mooy war a am benn ci ab jullit waru koo doye dal sa ngëm yàlla di mat da gëm yàlla ci boppam gëm gu wér yàlla lu am la ku am la fàdduwul moo fi jiitu ñëpp loolu Cheikh Amadou daan ci yar lool ba nga xam ne saa bu nara am ci loo xam ne day nara mabbu tawxiid mu daal di koy dindi fi saase boo xoolee xasidaam googu li gayrika la nashku ilaahal wara amra wa ma illana illa ilayka tija dahra nga xam ne xasida gu tawxiide waxin waxinu tawxiid dëgg-dëgg mooy kulul yow yàlla li gayrika la nashku waxul la nashku li gayrika daf koo xasr maanaam daf koo takk dane kudul yow kudul yow yàlla du ma ko di sama soxla yow képp laay di sama soxla yow képp laay yaa ma doy wéerukaay yow dong laa yaakaar loolu mooy mooy jàngale tawxiid moo ne te doxul digganteem ak pas-pasu sëñ bi maanaam buy wax ak sëriñ Tuubaa en tant que sëriñam ci tartari jamono dan danaan ko nag danaan ko xam naa ki nga doon wa anta anta ida mastadat mastadat uzumu soo wàcc xam naa yaay kan fu tartar amee xam naa taxawaay ba nga ci jaawale yooyu nag mooñu ñu yomb ñun léeg-léeg nit nit rek war koo jaawal nit ñëw na ci moom sëriñ Falil ne ko bis Mbàkke day daa maral tawatil tawal boog Mbàkke daa maral tawa tawatil sëñ Fallu jël sat la gi daal di daal di daal di jël sat la gi di wis di wis wis wis ba mu tooy kanamam tooy mu ne ko man taw taw bii man Fallu moom tooyal bii la man bi ci des nag ci loxol borom bi nekk mooy lan mooy li muy juboo juboo ak boromam bu ñaanee yàlla mu taw bu mu tax nag nga jël cërub taw jox ko sëñ Fallu ne ma ko moom déedéet yàlla moom moom taw sëñ Fallu day ab jaamam bu ko nangul jaamu ko déggal ko wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daa ida daani mu bokk ca yàlla jaamam ñi nga xam ne boo xasee dugg boo ne yàlla ana nga mën a maa ngi nii sëñ Fallu fa la bokkoon loolu nag bu mu tax nga jaawale ko ak yàlla bu ko joxat cërub yàlla kon kon li ko nit ñëy fonk-fonk du tax nag cërub borom bi subhanahu wa taala du tee mu leen koy jox loolu moom mooy yar nit ki ci pas-pas fexeel ba ak ngëm yàllaam tawxiidam bu mu mbokk yi waxtu yi moo ñu may ñu dugg ci bu nekk man nañoo jël at masuliyat tarbiya al xuluqiya maanaam ci wàllu jikko Cheikh Amadou Fadil radiyallahu ñi mu yaroon muy kii ñu dayee waxtaan tey muy alhaaji Mor Gueye ak ñamu nekkanoon doon ci kebaru Serigne Fallou ga jikko yi Serigne Fallou defoon ci ñoom ak yi mu dindi woon ci ñoom ulama tasawuf dañuy wax ne nit ki bala ndab li bala nga cee def da koo raxas ndab li bala nga cee def da nga koo raxas koo raxas raxas ndab li mooy lan mooy kum doon ci ñun ña keppaar woon sëriñ Touba ña keppaar woon sëriñ Fallu ku nekk am nga loo indaale woon am na melokaan yoo xam ne baraba la ko daan may da ngay dégg ñu diw naan man ab njigéen njigéen laa ki naan man ab kajoor kajoor laa ki naan ab bawol bawol laa ki naan jolof jolof laa sëriñ Touba bi ñëwee di détruire yëpp frontière yëpp da koy màbb def la ab murit ñëpp bokk benn type bu ñuy doon mboolem jikko yi nga jële woon sa tund mu topp la muy jikko yu suufee mu raxas ko ba mu set wecc Cheikh Modou Fadel noonu leen def am na ci yoo xam ne ah ci aw askan lay topp dañ koy dégg yoo xam ne ciw sant lay topp ah man nag man ab am njaayeen laa moom man moom kii ne man ab ngéyeen laa moom kii ne moom tàmbali fëgg sa dënn ñu dindi raxas ba mu set wecc nga nekk am murit loolu mooy jikkoo jikko yi nekk ci yow ci jikko yu baaxul dañ koy dindi at taxliyatu wa taxliya raxas ba mu set ñu solo la yére bi mooy lan ku fi indaale jikko yu suufee mbokk yi jikko jikko ñi ñaari jikko la jikko yu baax ak jikko yu bon jikko yu baax yi jullit bi daa war a fexe ba yëpp dañ jikko yu baax yi da war a fexe ba jikko yu bon yi da ngaa war yëpp dañ fexeel bu rëy bul njësal bul soxor bul bëgg àdduna bul añaan bul mën a wax lu amut lépp lu xeetoo yooyu fexeel mu dañ boo sagganee ba koy def na doon am rëcc ci yow wax lu amut danaa rëcc waaye bu ko jikko woo dana nekk ak ak ak yambare aku yaafus ci ab julit lool mu sàggan sàggan ba jikko yu baaxul yooyu mu langaami ci benn koo xam-xam kook moom ñu la diw ñu la yaay wax wax ay waxam kooku lu mu la wax amut dara jëru ko mbokk yi diw ah bu dee boo ko séqee moom jërul nga koy booy boo boo boo nga may ko ko de bu dee da koo lebal da wor de du la du la fay de mukk ci àdduna nit am lu baax nga yéene ko mu yàqu loolu moom moom añi ñañi la xam nga nu ko nit ñi waxee na gën a bon la moom waaw waaw waaw loolu moom moo gën yées waaye seen nga nit ki mën naa am añaan sax ca du ko xam mooy lan sëñ Modou Gueye otoom bu rafet bi mu yor ci misaal mu yor otoom bu rafet ma gis ne yor na oto bu rafet ca sama xol seddu ci dama añaan sama xol da cee war a sedd ma mel ne maa ko moom fii ak àggoo foofu rek naw am minal xasad mi ngi ci yow dara ci kañaan a ngi ci diw daraam yàqu diw daraam yàqu sa mbokkum julit daraam yàqu ca nim ko méttee métteewu la da ngaa xam nga yéene woo ko de waxuma nga ko yéene yàqu ko moom yéene ko yàqu gi waaye nag dalaa méttiwul sa xol maanaam ni nga ko war a yéege yéegoo ko xeetu kañaan la mbokk yi yooyu yëpp nag sëriñ Fallou da ko dindi ci ñoom ba mu set wecc wecc mu mu def ndab yi nag jikko yu baax yi kum doon ci ñoom la nekkoon ci moom moo ne moo mën a nekk moo leen mën def muñ moo ci man ku dul moom nee na kenn la ci naw muy suuf képp sëñ Fallou nee na muñ suuf képp la ci naw bul woon ak man a muñam nga booy waxtaan ci moom wallaahi da nga am paas yoo tëb ndax fi fay wala mu def fi loo xam ne wilaaya gi ne woon ci moom bu doon tey ku ko wokk mu xori ko kon kenn du waxtaan ci moom mbokk yi waaw <coughs> kenn du waxtaan ci moom waaye man a muñ nga dëkk dëkk gu jéggi dayoo muñ ñaari xeeti muñ moo am muñ ci naqar loolu lañ xam dara dal sa kaw rek ñu naan la muñal metti na waaye muñal loolu li ci sëñ li ci dal sëñ Fallou kenn xamu nu mu toll mboolem luy dal lu dal luy dal nit nit ñi jàmbat ñun ñi jàmbat lu ñuy dal luy dal nit dal na ko metti mënut a weesu xëy sa kër cin takku fa cin takkul këram sëñ Fallou def ko ay fan ki ñëw mu jéeg lu ko gën a metti maanaam natt loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne bu ne woon doji màkka yi mu soppili ko or mu soppi ko or mu jariñoo ko daana xëy daana am ay weer Seydina Aïcha neen daawuñ weesu ñaari ñuul yi watt ci tàndarma ji lekk naan ci ndox mi tin ci du tàkk ci kër gi ki sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Fallu mi doon jaar ci foofu nag moo tax def ko ci ñoom yombu def ko ci ñoom yomb ko lool ñu mën a muñ mboolem xeeti métti yi waaye muñu ñaareel gi moo gën a jafe xam nga muñu ñaareel gi mooy gan mooy muñ ci bànneex yombul de bari waa na koo xam ne da yaakaar ni mel na mel fekk daa amagul xéewal rek boo amee xéewal rek nga xam ne ndekk melul nii waaw léegi nag mooy boo génnee téye soo làmmiñ léeg-léeg gis koo xam ne gi yii di kenn moom ku ku ma dab na faat du ko weddi <laughs> way way sëñ bi yéen na faat du ko weddi tasaara rek waaw loolu baaxut ah ba ñoo xam ne maanaam bu nit feebaree seeti ngir yàlla waaye dañ ko dañuy seeti ci xaal ba na mel pour mën a xibaar buñ génnee loolu baaxut loolu mbokk yi di lu mat a jàng di lu mat a bàyyi xel ci ni kon ñu yar ci suñu bopp te yar ci sunu njaboot yar ci suñu bopp yar ci suñu njaboot terbiyement yi ni noonu lañ yara nit ki nan la demee ci ngénte nan la nan la demee ci céet dañ la ngénte wala wala ak takk ak céet xeet yu mel noonu boo amee sa problème bul fa dem waaw wax dëgg yàlla bu dee munoo ree munoo kaf munoo waxtaan bul dem ngénteeg ciit barabu mbégte la kon bul dem xam nga lislaam mi naan la buñ la waxee ngénte wala ñu wax la ciit bu dee bisu kooru ngàtt nga sax bul woor demal lekk ca ñam ba moo gën a màgg eh, eh, koor ga sëñ bi kay loolu kooku bëgg na nga ànd ak moom mbégte ma nga am sa problème nag yóbbaale ko ca ngénte la yow <laughs> dem ne foñ ñi déedéet bul dem safaan bay noonu bu dee barab boo xam ne barabu naqar la lu mel ne dëj boo amee sa mbégteeg say xaaqataay bu ko yóbbu bul dem ndax du barab booba moo tax nit ki pour mu jàng société ba xam réalité yi fi nekk yar ci boppam yar ci njabootam dafa war nañ ci jéem bàyyi xel bu baax a baax a baax ci ne kon mag ñi buñ doon topp yii nag yii mbokk yi ma ne sa cee wax yu yàgg yàgg yàgg waaye li ñuy wax yéen ñu ko gën a xam lu ñuy dund la kum doon si ñun am na mag moo xam ne sëriñ Hadi Touré rahmatullahi alayhi daan ko wax nee na sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu kum defar ba noppi ci moom. donte jàngoo téere yi boo jëfee jëf yi ñi raw téere yi waaw nee na sëñ Adi Touré nee na donte sëñ Tuubaa kum defar ba noppi ci moom donte ku jàngu téere la de waaye bu jëfee jëf-jëfi téere jëfee jëf-jëfi mag ñi noonu lañ meloon ku ci jaxasoo mag ku nekk bës bu set nga jàng ci moom loo xam ne bés bu set nga jàng ci moom loo xam ne dafa mat a bàyyi xel waajuru sëriñ bii sëriñ Modou Racine Ndiaye daana wax wax yu am solo la daan wax waaye rawatina yii ku fi mbokk nga jàpp ko sa xel bàyyi ko baax a baax daana wax ne bu la ko mbokk mi jëralut na la ko mbokk gi jaral mbokk wax ju réy ko mbokk mi jëralut na ko mbokk gi jaral léeg-léeg nga am mbokk mu mel ne man du la jaral dara séq sàmm ko ko na la ko mbokk jaral kër diwa ngi nii ngeen ah diw damaa faale du jaar sama kër mu man du ma man du ma fa jaar de bu dee man ci buntu kër bi laa ne xaar déedéet mbokk mi bu la ko jëralul na la ko mbokk jaral diw am na ngénte ngeen ah diw man damaa wax ngénte man ngénte lu ma ma sama yoon bu la ko mbokk mi jëralul na la ko mbokk jaral lépp loo teg sa kanam rek da nga rafetal sa diggante ak sa mbokk yow buñ dundee noon nag mbokk yi yaakaar na suñ diggante dana baax ñi ngi ñaan suñu wajur wi alxaaji Mor Gueye ak mboolem ña mu nekkal ca al barsaqatul al barsaq al muhammad yi